الشين معجمات والكاف والراء للراء والباء والباء والراء الشين معجمات والكاف والراء للراء والباء والباء والراء راء وباء له مغلوبه والله الباء والهاء بالإحمال والراء حائي وميمي ودالي لا يزال الله على الذي في حبان الباء والراء هاء ودالا ويا أن من حجاء به الياء وسين وتاء والهاء كفي ولامي بحي أعطيته أليفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء وادا لن لا يزال به خاء ودالا ومي من قبله ياء للسين والياء مدى لمحملة شوخا لمي من واو وين بعده تاو دالي وفائي وعيني كل أزمنات به كجيمي بلا من بعده باو فداد معجمة a والراء فارخاني وباء di la bëggee bu baax te lañ la waxoon ci njaarim ji rek la waxoon ci njaarim ji mooy boo soxlaa ndaw bi bara dem barsax tàmbali suñu jëmm yi ndax jox nañu suñu lëpp desuwuñ dara ak bëgg daal yow nañu ko def mbag te jaar la ko ci jëmm ji loo ñu war a ñaanal ñaanal ko jëmm ji mu ñaanal ñu ko nii ndax moom la ñu ci lii moom la ñu ci lii ñi nga ànd ak ñëpp Bambilor ak li ko wër yëpp ak taalibe fondation Dialib Baraxi yëpp ñu jiital jëm di am saw ni am saw ni mooy joriñ ñu sàkk nga ñaan leen ñu ñëpp soxna yeeg góor yàlla yeeg ñëpp nga ñaan leen baax mbàkke ak bëgg la kontaane lool lii waajuñu ko ab yëg-yëg rek la boo xam ne yëgaloo xam ne lu gis sa jëmm gis sa jëmm ji mënu ko daxal ñaar ñu nag ñu jekk addiye addiye ci ci ay milliards wallahi yéen lañ ne ko lépp ànd ngeen ànd ak moom na ngeen xam ne sëriñ Cheikh leeral na ko lépp sëriñ Cheikh nag dafa xam ne moom mii mooy sëriñ Touba moo tax mu ànd ak yéen ñii di ak njabootam ba ci kanamam ngir jébbal la boppam di leen di gën a jébbal boppam ak njaboot yu ànd lépp loole na ngeen xam ne sëriñ bii toog loolu sedd na xolam buy waaye dal na am xelam waaye ndokk bi ngeen ànd ak sëriñ Cheikh mii ngeen topp ci gannaaw ànd ak moom ci liggéey bi sëriñ Touba kon nag fu ngeen mën xam ne moom ngeen fa nekkal day fas yéene féddale ay laxasaayam rek ànd koo yéen ànd koo yéen ba faw di leen suñu borom dimbaluñu ban dajeeg tawfiix sëriñ Touba seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel na ñëpp tàllal seen loxo bismillah na ñëpp tàllal seen loxo أنا تديء به مهما ترى خلب بر عند منه داء أكرم بمن حسد الآخر بين معا مخلوب برخ وذاك الحاء والباء وجعت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لح الخاف ثم اللام والباء يحسيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء سادي وواوي وميم مما حييت الله ومثله الفاؤس متاء والراو